ay waay jàlla xalaa neex na lool di am mbégte di siyaare bu baax a baax a baax a a baax bul ma saaga bul ma saaga bul ma saaga bul ma saaga da koo saaga saaga sëñ Mara eh, laajal leneen waaye demaat dañuy dagg affaire de nga ne xalaas yaa saaga kii nag. yaa rek. yaa ko saaga de ay ca ñu dem. Eh, waaw sant yàlla bu baax julli ci yonante bi di sant Serigne Saliou Mbacké di sant bu baax a baax a baax ndongo daara yi nga xam ne daje nañ fi tey muy Modap. Euh, di ñaanal président Ousmane Sonko yàlla na ko suñu borom defal jàmm. Ousmane Sonko yàlla na ko suñu borom defal jàmm te yaakaaram incha allahu rabbi du tas. lu tas nag mooy dama leen di wax rek ñaar rek mooy mbiri président Ousmane Sonko nekkul ci ay këyit rawatina këyit buy bàyyeekoo senegal loolu moom wax naa ko bu yàgg waaye la 17 bii ñu jëm dafa am lu ci xew la 17 ñu bëgg ko cee rendi te président Ousmane Sonko waru cee dee li tax ñu bëgg ko cee rendi mooy 17 plus 17 égale 34 yaa ngi may dégg 17 plus 17 égale. 34 ñu jëm ci ay élections yoo xam ne 2024 la ba noppi kat bi jaaroon fi daal ne 44 44 ma ne ko indépendance ngay way dëgg la de mais ñi ngi jëm ak yow ci 2034 mooy suñu ñaari mandat te moom suñu bopp googu dañ koo soxla ci le 17 bi na ngeen déglu wax ji bu ngeen demee xam naa dina naqaree jàpp tuuti ci ñu dul siifar ma lay wax ne li gën a jafe mooy rey nit ku deewut te président Ousmane Sonko ñu ko wër dañ koo bëgg a rey rey gi nag mooy seppi ci ay këyit def ci ay mbir loolu amut solo xam nga li ëpp solo mooy di xeex suñu borom wala ngay xeex ak koo gisul te Sonko yomb na rajje yomb na tas parte waaye xam nga lu jafe génn ci xolu jaam ñi président Ousmane Sonko ndax yàlla moo ko ci def te yàlla noppi na ci moom moo tax yëf yi ku yabu nañ ci rafet a bañ cee ñaaw kàddu yi jërul muy gudd jot amul fenn te ñu ngi ci ay liggéey jërëjëf soxna si. mu mel ni tey par exemple ñëpp dañoo jàpp ne comme yéen tey Ousmane Sonko war na mën na sax en cas au contraire bi nag. xam nga Sonko gagné na. looy def ba pare ñu yàq ay këyitam. Mm-hmm. demul élection boo gàttee xel da naa naan laa ah, demul élection yàq nañ ay këyitam damay wax rek loolu du am Sonko nan la gañee tey ndaw ñi ak donga daara yi ak ñii ci dëkk bi nii ñu jógee seen xel yi yewwu ñu xam li nekk ci seeni réew politiciens yii duñu ndax ñu bañ ko loolu kan moo ko tàggat ci ndaw ñi muy prisident Ousmane Sonko lenn la desee ak ñun ñuy dem ci pale bi te loolu ci kattanuk yàlla fii ak yàlla mi ngi mi ngi mi ngi koy jox bakkanam ci kattanuk suñu borom dinañ ci yegg mi xuccoowuñu yàlla dara te lu am yàlla la waaye Sonko dafa nekk nit koo xam ne bu ko Sénégal xamoon jàpp naa ne moo tax gis nga Sénégal meneen musibam naaru laay dana fi ñëw maa la ko wax de moo am de parce que kii ngeen dugal ci kaso bu ngeen ko xamoon yaakaar naa ne waaye moom de daa am yërmande moo tax lu baree bari boo koy wax ñu xamut ak ñi dul siifur ak ñi dul liggéey ci wàllum yëf dañ naan kii lii lan la mais Sonko bu ko senegal yi xamoon dañ koy waggar biir na ma ne bu feeñoon ci beneen pays danañ ko téewee neneen mais ku fi mas a woote woo lu baax rek sonn nga tàmbalil nag ñii rey nañ leen ñii tëj nañ leen ñii fekkewuñ ko moom nag tëj kasoom dafa bokk ci yoonu paleem wasalaamualeykum wa rahmatullah